waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw da ngeen ñëw ndànk ndànk rek jox deux pas descente bi may ko loxo may ko loxo meilleur pas c'est ici c'est ici masha Allah Soit, soit, soit fort toi aussi. Et puis, prends gars yi ñu dem ci kër ñu dem ci ñu xaar ba mu jàll ba pare ah. may ko mouchoir may ko mouchoir. may ko mouchoir ana mouchoir. non est-ce que lii. kon Pape Aliou ñëw na mooy ñan. nee na ku jigéen ci Bamba Camara nee na ku góor gi Maamu Ndiaye dugal dugal nii nii lay doon moom man seen xaay. nee na muy wax gars yi bu baax. allez-y nee na si Maamu Mbacke te ñeent jërëjëf. non non non bu toog bu toog tey ma ko war. maama sa papa maama nee na imam Dramé nee na ñu teewlu nag. nee na ndax li ñu a wax lépp. nee na sëñ Ahmada. nee na ci xelam bu rafet. nee na danoo dimbali. nee na comme que. nee na Bamba dafa sàkk. nee dara. te teewul. te teewul. nee na sëñ bi nee na. lépp lu war a wax. nee a wax. ku am kaddu. na jël kaddu. nee na suñu paree. su ñëwee rek. ñu def farata. nee na yàlla dimbali nañu. lan waroon a wax. la ci ëpp. sëriñ si wax nañu ko. nee na kon nag léegi. nee na dañuy bi. Pape Alioune Ndiaye. Pape Alioune Ndiaye. mooy ñaanal. Mamour Ñaamu Ndiaye. sëñ Ahmada moo koy may. nee na su noppee. nee na mu xutba. nee na su noppee. sëñ Mamour nee sëñ Mamour sëñ Mamour Mbacke ñaan. nee na ñëpp teewlu. nee na fu waay taxaw rek baax kon bisimilah. presse bi ñu ngi leen ñu ngi leen jéglu baax. ñu teewul. nee na ñu teewul. ñu ñaan ñu ñaan. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على سيدنا محمد والفاتح لما سبق ناصر حق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سيدي أحمد مكي نيغي نيانال Euh, Bamba Camara Mamour Ndiaye ci farat ak yàlla ak sunna Muhammad ci can gu teew ñaar fukki junni mbooloo mi ngeen seede ko inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabiyyi wa lazina amanu sallallahu alayhi wa sallama tasliman sallallahu taala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ñu déglu ñu déglu teewlu rek moo moo amin nee amin nangu leen ñaan sa borom barke bi آمين آمين Bamba Camara may naa ko ak borom kër may nañ ko Mamour Ndiaye ci barke si Allah sunu sunu amiin sëkk toolu ci ñaar fukki junni amiin ci ay ndigalu way juram amiin des imam amiin nee na waxal nangu naa nee na ñu teewlu imam xutba nee na sunu noppee sëñ Mamor nee na mu tëj ñaan gi alhamdulilahi rabbil alamin نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا امين سيئات اعمالنا امين من يهده الله فلا مضل له امين ومن يضلل فلا هادي له هو الذي خلق من امين بشرا فجعله نصرا بصيرا امين وكان ربك قديرا امين هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كان المشركون ثم اعلموا ان الله تبارك وتعالى قد احل النكاح ونلب اليه وحرم السفاع واوعد عليه وقال في محكم تنزيل يا ما يكفي يا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان يا ما يكفي ومن يطع الله امين ثم amiin ak Jallo ya jamaatul muslimin amiin Mama Camara di Mamour Ndiaye bi fadlillah wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam bi sadaqati mi'ati alaf amiin saakum bi ma'ruf wa tasib ihsan amiin jamaala shamluhuma wa anta nasruhuma amiin wa barik li kulli wa'in amiin ala saakum allahumma fiqhuma amiin ma firid allah amiin amiin donc ne ñëpp teewlu ñu déglu sëñ Mamour Mbacké dañoo ko nangu ñaan imaam daame xutba na jóol kon na ndewul papa bis minni di man lahul wujud wal qidam حمد والشكر وتقبل القدم نفع ذو البغاء والمخالفة الحق ذا الحكيمة لا مخالفة إلى الذي القيام بالنفس وجب وصلت إقلاسي وجاد بالعجب لله رب العالمين الوحدة وحد كفاني كل ضر وحدة له شكري تعرف بالنفسية وكان لي بالبشر المرضية وصلت القدرة لما أحب والعلي أرادا حقا ذو القلم وذو القياتيم بما يسفي أبدا قياتي إلي قاد سمه والبزر ما رمت من المنى والضري سرما لي قاد ذو الكلام ذكره الحكيم وصاني غاب عن كل حكيم مد لنحو قادر سرا به لم ينهني المريض مد لنحو قادر سرا به لم ينهني المريد وليقاد سمه والبشر ما رمت من المنى والضري سليمان jërëjëf Prince nee na ñu déglu mu ñëw sëñ Mamour Mbacke teg ñaan gi nee na fu waay toll wax amiin nee na yàlla na yàlla defal jàmm kooku jàmm rek mu ci fekk. nee na ñu déglu ngi nuyu mbooloo fi teew yëpp. nee di ci jiital ci noo bi kilifa tedd yi fekk. muy sunu mag sunu xarit sunu kilifa. ak imam daal bu baax mi ak kilifa yi muy fekk yëpp nee du nuyu soxna Bamba Camara nee du nuyu sëriñam nee na kàddu yi sax nag mënoon naa ñàkk waaye xam nga yoonu murit dafa am nu mu tëddee noo xam ne nee na ndigal rek moo ci moo ci moo ci valable ndax nee na sëriñ ba muy lim melokaani murid saadax ya nee na ba mu waxee dëggal ci bëgg sëriñ Touba nee na topp ndigal la ca teg mu mooy fa ndigalu sëriñ ba rote rek nag nee na bu ramati benn ñitte bul daal di koy jafe nee na yooyu nag ku la ci mag mooy sa kilifa sëñ Ahmada mii moo ñu féeteeg mag nee di sunu mag di sunu sëriñ nee di sunu xarit ñuy ñaan sunu borom mu sàmm ko taxaw ko te aar ko ci barke Seexul Xadim maamam nee di ko ñaanal kilifa yëpp tëg moo xam président Wally Seck alaaji mii ak mboolem nawleem yi mu àndal nee na kàddu la dénkaan bu gàtt lay doon nee na sëñ ci wari nee na woon nee na képp ku bëgg a yegg fa nga jëm nee da nga yaraloo attan tey doxe na nga ma ne tey sukkandikoo yàlla sunu boroom nee képp ku bëgg la yegg fa nga jëm nag mooy koo xam ne lu mu am lekk ko moom dong lu mu am jagoo ko nee na ci ak mooy ak sukkandikoo pexem doomu aadama wax na itam ne nee na wax na itam ne jaamu yàlla jaamu yàlla ak liggéeyal yàlla ak liggéeyal yàlla dafa nuroo te bokkuñu nee na nee na jaamu yàlla ci la koy def waaye liggéeyal yàlla nag ci jaam ñi lañ koy def waaye liggéeyal yàlla nag ci jaam ñi lañ koy def nee na jaateg ne képp ko amal nit ñi njariñ amal nga yàlla njariñ ne képp ko amal yàlla njariñ nag kaw suuf si gën ci biir suuf si nee na waay waay Wally Seck nga yàgg fee gën nee na kaw suuf si nag moo gën biir suuf si. nee na képp ko amul nit ñi jëriñ nag. nee na na leer nag amuloo yàlla jëriñ. ne ko amul yàlla jëriñ. biir suuf si gën teew kaw suuf si. nee na loolu Serigne Touba sunu waajee koo xam. nee na bu li ma gën a neex ci moom mooy tur wi. Cheikh Abdou Lahad Mbacké kay nag ñoo dafa waxoon ne képp ku ma xam ci yow bëgg sëñ Touba nee na képp ku ma xam ji yow bëgg sëñ Touba sa seen sikk waaye waaye gisatuma sa seen sikk ndax boo xasee bëgg sëñ Touba ndax nee na boo xasee bëgg sëñ Touba daal amatoo seen sikk amatoo seen ndax yàllaa na yàllaa lay dimbali rek nga bëgg sëriñ bi bëgg bi nee na bëgg sëriñ bi am lijjanti mayewu ko am lijjanti xam-xam mayewu ko xam ko askan mayewu ko askan mayewu ko daraja mayewu ko daraja mayewu ko yàllaa lay dimbali waaye waaye yàllaa lay dimbali rek nee na bëgg loolu Serigne Touba ndax sëñ boobu sëñ Touba moo wax ne boppam ne nee na xool ma texe danañ ma bëgg daan képp koo xam ne. nee na képp koo xam ne. seq na ay jéegoom. seq na ay jéegoom. dem ba Makka. ba Makka. ne la ne labbayka. wala mu dem Madina. wala mu dem ba Madina. ne asalaamaaleykum yaa rasulallah. ne asalaamaaleykum yaa rasulallah. te ak noonu ma nekk ci xolam bi. te ak noonu ma nekk ci xolam bi. nee na yàlla du ko fay. nee na yàlla du ko fay. rasulullah di ko fay. loolu la sëñ Tuubaa ko bind. nee na bamba mii nag ñu xam ci moom bëgg sëriñ Tuubaa. nee na looloo waral suñu tànk teew fi. nee na fekk suñu kilifa gi. liñ koy dénk nag. nee li lay dénk nag. mooy la sëriñ bi waxoon ne. mooy la sëriñ bi waxoon ne. jigéen day mënta ñàkk mu wéeru. jigéen day mënta ñàkk mu wéeru. ndax bu taxawee te wéeruwul. ndax bu taxawee te wéeruwul. ab jël da koy yomb. ab jël da koy yomb. daa nekkoon kii borom këram. daa kii borom këram. na nangu mu wéeru ci moom. na mu wéeru ci bi sallallahu alayhi wa sallam nag. ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne. wax na jigéen fa muy jaar ba mucc. wax na jigéen fa muy jaar ba mucc. ci xaddis bu gàtt. ci xaddis bu gàtt. nee na da ca njëkk. nee na da njëkk. mooy nay nay nay taxawal julli yi. mooy nay taxawal julli yi. nay woor weeru koor. nay woor weeru koor. nay wattu boppam. nay wattu topp borom këram. nay topp borom këram. ko juróomeel bal ko juróomeel te taxale di janna mooy mu tàbbi aljana ndigalul borom kër nag nee ndigalul borom kër nag moo gën a foor ci soxna moo gën a foor ci soxna ndigalul way jur ndigalal way jur doom ju góor nee ndax dañuy wax ne doom ju góor ki ëpp ci moom àq ki ëpp ci moom àq mooy baayam mooy baayam waaye doom ci jigéen waaye doom ki ëpp ci moom àq ki ëpp ci moom àq mooy borom dañuy wax ne àjjanay soxna day. nee na wax àjjanay soxna day. mi ngi ci ndëggul ci ndëggul tànk borom këram. moo tax ñu ne borom kër day dañ koy moo tax ñu ne waaye yàlla la ñuy jaamu. waaye yàlla yàlla la ñuy jaamu. moo tax sëñ Tuubaa waxoon ca. moo wax sëñ moo tax sëñ Tuubaa waxoon ne. ca wasiyatu soxna Penda Diop. ca wasiyatu soxna Penda si. nee na yow soxna si. maa ngi lay dénk muñ. nee na ma yow soxna maa ngi lay dénk muñ. ak ragal sa borom. ak ak ragal sa borom. fii siri ci lu ci lu siri ci lu nëbbu. feeñ wóolu jeex ak ci lu feeñ nee boo ko defee nee na boo ko defee fa yax fira la yàlla boo ko defee yàlla jéggal yàlla jéggal la mu ne ko itam nee na mu ne ko itam yow soxna si yow soxna si bul sàkkoo topp yàlla bul sàkkoo topp yàlla lu dul nga toppee ko ci sa ndigalul lu dul nga toppee ko sa ndigalul borom kër ولا ترومي ولا ترومي تاحة الله تاحة الله بلا تاحة بلا تاحة زوجك زوجك التقي التقي ذي الهدى ذي topp yàlla lu dul nga topp ko ci sa ndigalu nee kër bi rek bi ragal yàlla ndax nee na la sa borom kër gërëmee ndax nee na sa borom kër gërëmee yàlla gërëm na la bu sa borom kër gërëmul bu la sa borom kër yàlla du la gërëm yàlla du la gërëm ba faw moo taxoon soxna Bamba moo taxoon soxna Bamba ñu ngi lay dénk nga gën a góorgóorlu ñu ngi lay dénk nga gën a góorgóorlu te gën a muñ te xam ne ne sëy moom te ku ne xam ne sëy moom sëñ Touba nee na sëñ na ab jullit ab jullit day muñ naqar day muñ naqar asgor asgor day muñ coono day muñ coono wasalaamualeykum defal ñaan kon na ñëpp nangu ñaan ñu déglu sëñ sëñ maam Xaar Yàlla jërëjëf Mbacke ñu dan ci ñaan yàlla saa borom barkeel sëy bi te def ci jàmm te ma leen njaboot gu góor ak njaboot gu jigéen barke amin amin amin amin amin amin آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين يا رب آمين آمين آمين آمين آمين آمين يا رب آمين آمين آمين آمين آمين وسلم آمين آمين آمين آمين سيدي بابا واحد لا سيدي بابا يا ما سمع بابا واحد آمين آمين أيوة يا بني رب العالمين والي سكاي دوسة دوم رجع والي كيسا والي léegi moom moom moom sax laa moom. may ñu ko rek Bamba da ngay génn ma xawal ñu. Bamba kay bi sa papa. tey de tey de tey de tey de moom doo fex laa moom. may leen ko mu nuyu mu nuyu papaam. Bamba bàyyi jooy yi. tournel tournel ñu xool. Bamba bàyyi wàllu tournel. tournel yi ñu xool.

taxaw ñu foto taxaw ñu foto bilaay ma jëm bilaay ma jëm man ma yaa jëm ma doom de yaa jëm ma doom taxaw taxaw foto foto foto foto